la jógee quoi et puis la artiste la ah euh, merci d'être là kontaan nañu euh, Thiat euh, Kilifa ñu ngi leen di nuyu encore félicitations. merci ah vingt ans de vingt ans de hip hop déjà il fallait le faire c'était même pas évident pour groupe bu mel ni kër gi. du tout. metti woon na lool lool lool lool lool lool lool lool c'est-à-dire je me mettrai pas là à rappeler mm. euh, parcours kër gi mais umpalewul benn sénégalais euh, euh, qu'est-ce que ça vous fait dem ba groupe bi def vingt ans di ko célébrer ba mu nekkoon ba léegi sax laay wax ah une fête nationale sant yàlla sant yàlla parce que quand même vingt ans c'est pas donné à n'importe qui comme ni nga ko waxee donc bu ñu ko yàlla mayee li muy firnde bëri na day firnde ànd bu yàgg dëgg la day firnde que ne wóoluwante nañ seytaane boole wu ñu macha allah yàlla na yàlla xet dolli jigéen boole wu ñu alal boole wu ñu ñi ànd ci sutura ñi ànd ci muñ ak kersa mais aussi wane day wane aussi professionnalisme parce que ay nit bi ñu liggéey pendant ans ça veut que am nañ am na professionnalisme derrière quoi. mais surtout engagement beeg abnégation bi ak aussi gëm nañu li ñuy def. gëm nañ ko quoi lii la nii lañ koy tracé nii lañ ko defee et surtout lu ci ëpp solo mooy di ko defee façon bi nga xam ne moom nga koy defee ba tey mosoo cee wàññi un iota. ba Sénégalais y fekk la si au début on était incompris aujourd'hui sur tout ça. pas évident du tout parce que da ngeen ñëwoon ak ak c'est-à-dire carrément euh, ngeen casser. Euh, code yi ñu amoon ci. Euh, je dis pas rap mais ci ci art de façon générale. ci de façon générale donc def ko pendant vingt ans. il faut nga nekk jàmbaar kam effectivement effectivement di nuyuwaat téléspectateurs yi di nuyu tous les sénégalais ak fépp fu ñu nekk. c'est, c'est, le, chemin, le chemin était très long et c'était pas évident aussi ñu exister pendant vingt ans mais alhamdulilah di sant yàlla bu njëkk buñ sante yàlla ba pare di sant aussi le public sénégalais qui a cru en nous. parce que yombul ngay def benn affaire tout au début mu nekk loo xamante ni. t'as tous les problèmes du monde pour teg ko. Mhm. mais ñu am le support du public et surtout notre région Kaolack bi nga xamante ni ñoo ñu tooj gëm ñu ba Sénégal jot ci ñun gëm ñu donc alhamdulilah di sant yàlla di wax yàlla na yàlla xeeb dolli di ko ñaanal aussi képp koo xamante ni mu ngi ci game bi ci noo ci mën a nekkee muy beneen xeetu aar booy def la ko ñaanal aussi nga toog bay feete vingt ans ou trente ans quarante ans cinquante lan mooy secret kër gi euh, longévité bi euh, gëm-gëm ci ay combat d'abord gëm sa bopp ah. soo gëmee sa bopp xam fi nga bëgg a dem. am définir sa plan de carrière xam nga artistes yu bëri dañuy def art juste pour def ko ñenn ñi dañuy dañuy judd nekk ay artistes. c'est dans le sang ils le font mais boo définir sa plan de carrière xam ne yow en tout cas lii nga bëgg a def te lii pour nga def ko fii ngay war a yegg. dafay dafay yomb si yow c'est-à-dire mën a waaxu xam fi nga jëm moo ko gën donc ñun xam nañu ne ñun carrière bi ñu bëgg a def am nañu ay ambition nous sommes très ambitieux mm-hmm. bëgg nañu am ay Grammy ay awards ay disque platine loolu lépp loolu la ñu bëgg indi Sénégal loolu moo suñu mm-hmm. ambition mm-hmm. moo tax quand on fête vingt ans dem def grand théâtre mais aussi une tournée derrière wër àdduna bi yëpp mais finalité bi pour nous c'est c'est c'est dem jëli ay disque d'or comme suñu nawlay ni ñu koy defee te lu dul gëm sa na ñun ñoo fi mën te xamuñu dara. ñoo fi mën mooy amuñu complexe xamuñu dara mooy chaque jour ñu ngi jàng. donc c'est ça philosophie. Mm-hmm. Mm-hmm. gëm nañ ne ñun li ñuy def yombut. Mm-hmm. mais aar la si ñun lay jógee. ñu ngi koy jox. xam nañ ni ñu ngi koy joxee donc toujours nekk ci liggéey boobu noonu abnégation la rek du leneen lu dul lépp loo munti def abnégation la nit dina nekk di di lang kaar di lang kaar ba nekk chauffeur parce que dafa am négation ci langum kaaram la professionnel au-delà de l'aspect maanaam ay sentiment de fraternité mhm. bi mooy sëy yi sax léegi dureetuñu cinq ans mhm. ñun suñu bos bu duree vingt ans ça veut dire que ñu ngi ci enseigner waale que ne c'est possible ah yoo xamante ne juddoo ndoñu ak juddoo woon juddoo ndoo nañu ak kër mm, mm. na mais ba tey nag ñu continuer di gis euh, kër gi tout le temps la main de Dieu mi ngi ci tout ça cest dire même combat loxo yàlla mi ngi ci parce que yàlla moo ñu jàppale du suñu du suñu mën mën ak suñu ay waajur aussi nekk ay xarit ak ñu ñi ba pare ànduñu ak ñu ñuy nax. Mm-hmm. Gajaga ak ay Sofia ñi ñu àndal naxuñu. Mm-hmm. c' est des gens c' est des amis c' est des gens qui nous disent les choses li li am dëgg. Mm-hmm. xam nga àndandoo ak am benn level boo xam ne boo fa xasee ba toll say xarit dañuy soppeeku dañuy changer ñeneen ngay xam. en général ñooñu noonu duñ la wax dëgg parce que xamuñu ki nga doon li nga nekk lañ xam. donc yooyu yëpp dafay nekk ay aspects yu entrer en considération tey a nos jeunes frères mooy que ne toujours del ànd ak ki lay ñemee wax dëgg. Mhm. parce que moom mooy tax nga redescendre sur terre. Mhm. boo amee les chevilles enflées moom mooy jël puso dégonflé la. Mhm. donc rester sur terre comprendre que ne lépp lu ñëw du yëwul sa mën-mën. yàlla la ak ñi lay support. ak aussi sa liggéey nit ñi di la ko delloo parce que loo joxe moom lañ lay delloowaat. c'est ça. alors su su on vous voit souvent ci yeneen front euh, euh, des fois qu'est-ce looy défendre lu bokkewul ak carrière ah, artiste bi euh, des fois du leen xaw a jaaxal tuuti liñ dul def par des choses. on en souffre énormément. d'ailleurs on n'a pas de sponsor ñun. musuñu am sponsor. alors que y a l'artiste y a aussi. Euh, l'activiste euh, l'activiste. <laughs> defe naa benn bokk ci ak sa morom ah. du bokk ci ak sa morom mm. parce que aujourd'hui par exemple. parce que grand théâtre déjà ñi fa ñëwoon ñii ci référendum bi non la ñu woon wii la ñu et ils étaient venus pour voir les artistes. bien te jour boobu le 12 boobu ci la campagne bi ubbi. ah oui te pourtant on a fait le grand théâtre on a fait un spectacle de deux heures de temps nekk nañ ko sur scène on n'a pas parlé de politique de wax leen oui wala wax leen non suñu c'est-à-dire boobu on n'avait pas le droit de dire. Euh, autre chose boo xamante ni lu dul musique. est-ce que vous souffrez vous vous da ngeen di souffrir ci mais énormément on souffre énormément ci loolu. parce que war a def a marre ça bi euh, ngay fexe di fight loolu rek déjà pour que nga maintienne c'est très difficile. Ouais. mais heureusement ñun on sait faire la part des choses. xam na nañ lay bu lii jotee. on le fait. bu leneen jotee on le fait. parce que pour man. Euh, engagement bi euh, activisme c'est juste une position. boo xamante ni dañ ko jël. musique bi aussi c'est juste loo xamante ni c'est notre métier mais lii c'est une position boo xamante ni Pape sax da koy jël quand le pays en a besoin pour man bu bu citoyenneté taxawee éliman bi euh, muqaddam bi euh, chef guide religieux bi ñëpp war a summi seen casquette sëriñ ak lépp ñu doon ñëw taxaw nekk ay citoyen ba day jàll ci ñeneen ñi mais des fois ça passe pas avec nous. Mm. un petit problème mhm. mais ça va venir avec le temps mhm. ñu ngi ci suñu musique di ko handle mhm. parce que gis nañ ni ñi nga xamante ni dañuy follow parce que euh, on est des artistes ñu ñuy follow bu baax parce que looloo tax aujourd'hui on arrive à vendre beaucoup d'albums ah ah ah on est à vingt mille CD loolu laa bëggoon wax euh, ak Thiat euh, nee sponsor yi du euh, ñu ñëw. sponsor yi teewul gars bu souffrance bu neex la bu baax sax. souffrance bu neex la xam souffrance boo xamante ne la. tu as le respect dans la rue. waaw man je préfère souffrir souffrance bi nii aw ma sponsor aw ma appui. mais ñëpp respecté ma plutôt que jaruma dërëm ci àll bi ma yore loolu ak loolu. <laughs> quand tu kër gi. soo ñu xoolee tu sais que c'est vrai. <laughs> parce que ñun lu vrai la ñuy def. te dañ ko gëm dañu am conviction ci li ñu def dañu gëm ne ñun.

doomi réew mi ñemewuñu ànd ak ñemewuñu allié seen image ak ñun. Mhm. lañ cay ragal mais tam seen politique bi dafa fort de. mais grave yow sax sa bopp a gën a fort bu kilifa. mais doomu réew moom xam nga yëpp laa lay gis. mais xam nga doomu réew moom lu ci conférence de presse nga wen nga sambaxane. waaw mhm. xool leen ma xoolal leen ma boy bi rek. mais taaw lañ ko war a woowee quoi il nous fatigue sa gosse. est-ce que xam nga doomu réew mi am fit quoi oui vous savez parce que vraiment président bi <laughs> mais gis nga doomu réew moom donc ça mais c'est ça et c'est ce qui fait son charme en fait. fit bi mu am. yow dinañ la mos a dóor dóor yoo xam ne ah. Euh, dóorati mais bon garaawul dóorati mais bon après c'est pas grave loolu ci la bokk ci la bokk. et pourquoi je parle comme ça avec toi. Mm-hmm. Euh, des fois nit ñi dañuy jaawale gis nga boo nekkee ci ay combat comme euh, kilifa di activiste boo ko nekkee da ngay sérieux moi j'ai rencontré plein de gens c'est-à-dire après damay indi débat. Mm. non booy bi dafa dafa dafa dafa booy bi tàng xol la. et je leur dis non. c'est-à-dire. Euh, c'est un artiste. et joie de vivre bi mu am il faut nga jege ko pour xam ko. je pense que mosoon naa ko soulever. et dama koy soulever waat. Mm. Euh, nit njaay la comme tout le monde moom caata. c'est ça moi j'ai toujours envie de montrer ça aux gens quoi. bien sûr bien sûr bien sûr bon c'est c'est c'est vrai a nga ah, ko daal mais da koy peñe tuuti wala nga koy kii. garaaw loolu yëpp xam naa bu ma amee soxna yooyu dina ko toppatoo <laughs> xam nga suba tey su ma takkee jabar boo gisee ñu peñe ko di a ah, kon saa takk na donc nañ bàyyi la. mais albi dafa ma doon lay sax mais xoola caat bu ñëwee dama ko ragal quoi ma ne ko kooku ragal. nit ko baax la c'est un artiste et regardez euh, comment comment il est pris. Euh, bu ñëwee euh, pour ma laaj ko mbaxana bi quoi style bi c'est ce que tu me disais. ana bi ni mu koy wengalee quoi. loolu da ko sol ba yóbbu wàcc. combi combi man combi may daaneel. non combi léegi loolu temps booy. <laughs> outil de de travail la. <laughs> Ah, oui mais un artiste bu ko neexee mu dugg ci combat bu ko mënti neex. justement moom moment bu muy nekk citoyen moment bu muy nekk artiste. ñun eh, nous investir dans la rue xeex pour suñu pays suñu devoir la. Mm, mm. suñ ko fayiree fayir nañ suñu devoir. Mm-hmm. bu ñu ko defee def nañ suñu wareef. Mm-hmm. utuñ ñu fi auto glorification. defuñ ko pour ngóor dañ ko def parce que dañ ko war a def te génération la ñu bokk te dinañ ko def. Mm-hmm. kenn mënuñu ko tere def. malgré tout cela ñi nga xam ne defuñ ko wala nanguwuñ ko def. teewul ñoo leen dàq jaay. ñoo leen ëpp ay scène ñoo leen dàq tourner ça veut que aujourd'hui mhm. il y a ce paradoxe là quoi c'est-à-dire ñi nga xam ne dañu toog croiser les bras ne non man je m'implique pas mhm. mënuñ ñu gën a jaay mhm. parce que aussi les sénégalais dofuñu ki toog këram yow nga génn wàcc xeexal ko aujourd'hui boo ñëwee ne ko man génn naa sama album il est dafay fier ah oui ah oui appartenance là en fait mais c'est man man grand théâtre bi j'ai même vu des gens yoo xamante Ils ont acheté leur ticket à 1 million. Il y en a oui, oui. Il y en même qui euh, y a quelqu'un qui a acheté son ticket à 2 Des Sénégalais comme yow comme ouais, tu viens de le dire parce que on avait fait des comme de sponsors mhm. on avait fait des tickets de VIP Prestige à 1 million, VIP Diamond à 500 000, mm -hmm. 250 000, mm -hmm. 100 000. Mais machallah, c'est ça qui nous a permis de réaliser le grand théâtre mhm. parce que à la sortie du Grand Théâtre bi ñu defee les dépenses. Mhm. on était à plus de quinze millions. Mhm. ba pare et puis mu tàmbee woon aussi amuleen woon sax temps wu concentré wu euh, euh, euh, promo bi ak seen ay programme et tout ça précise que précise aucun homme politique bu jënd suñu suñu suñu ticket ça aussi ça aussi dañu bëgg mu clair xam nga aussi y a amalgame mais homme politique yi dañoo amul dërëm dañoo eh, dire homme politique bu la ciy jox xaalis alalu mi lay jël di ko passer passer su ko jëlul amu ko des sénégalais comme yow comme keneen mhm. yore seen teranga ñoom ñoo contribuer ci suñu concert on aurait pu faire ay parrainage ay mhm. ay jël ay tudd sous le au patronage tel ou tel. suñu mhm. concert ñu ngi ko tuddee suñu copine ku ñuy àndal bi nekkee xale ba léegi. Mhm. moom lañ ko tuddee. Mhm. donc jëndu sax ticket de passage moom jëndu amul sax. dafa ñaan ticket marraine dafa dañ ko may ticket. marraine bi kan la woon Sofia. ah Sofia ngeen ko tuddee woon. suñu xarit la mais dafa ñaan ticket pour dugg concert donc voilà. après bon c'est les sénégalais. c'est ça c'est ça kilifa ki muy wax noonu noonu kooku dafa ñëw mu ne non moi j'achète avec damay jënd ak beneen marge. parce que il faut quoi 2 millions 500. parce que il faut ñu jàpp si. et des gens qui appellent loo xam ne mosoo leen gis ci àdduna. ñu ñëw. taal seen oto ne man dama dégg ne am na donc VIP bi lan lay demee comment ça va se ñu ne ko non yéen ci kaw lañ di yóbbu. et pour la première fois Grand Théâtre amul nit ñi toog ci kanam ñoom ñooy boss yi ñu tagal leen réservé. nga ñëw di wéy ñu lay battre xaalis non ci kaw lañ yóbbu VIP yi. concert hip hop la nit ñi nekk suuf avec notre public. mu am communion avec le public et ñu jox vraiment Grand Théâtre li mu war mel configuration ko jënd dañ koy estimer. un tableau d'art se vend à cent millions. Mhm. leneen ak leneen leneen ñun on a estimé que li ñuy def. Mhm. romb na prix boobu noonu c' est un mhm. prix abordable que ku am Sénégalais bi am cinq mille ñëw ki am dix mille ñëw. ki am quinze mille ñëw ki am un million. ak koo mënti nekk ak koo mënti nekk ñu ne la même spectacle ci même salle ci même temps ci même durée kenn xamuloon kan moo am un million ak kan moo am cinq mille francs c' était ça l' objectif. d' accord d' accord et beaucoup de gens ont pris le vol aussi. jóge France est ce que est ce que loolu léegi da ngeen bëgg a rendre hommage nit yi. nit yi leen fekk si si woon ngeen bëgg rendre hommage pour dem fekk leen fii ñu nekk par rapport ak tournée bi. mais effectivement Pape Cheikh parce que xam nga am na loo xamante ni euh, euh, reconnaissance la. Mhm, mhm. parce que ngay organiser sa vingt ans. Mhm. ñi nga nekk ndooloon xamante ndool ak ñoom di mënee ndoog ñoom combat. muy les sénégalais. ñëw réaliser loolu. parce que ñun dañu on a proposé proposé un show. un spectacle. ne danañ dañoo bëgg a def suñu vingt ans lii la ñu bëgg a def. sénégalais yi ñëw réaliser loolu. ce que j'appelle la réalisation mooy l'investissement qu'ils ont fait. parce que si ce n'était pas les sénégalais qui ont acheté les tickets. on n'allait pas réaliser ça. honnêtement très honnêtement. alors donc pare nañ ci à la sortie de ça pour nous. Euh, war nañ toogaat fépp fu ñu jaaroon. Euh, communiqué ci sénégalais yooyu bañ ba ñu jël seen kii def ko ci. ñu jaaraat ci ñoom ne leen one love di leen jaajëfal. tu vois ba pare di wax ni que ni les vingt ans continuent. la tournée continue parce que des na l' étape de Tamba. l' étape de Ziguinchor c'est ce que je voulais dire. Euh, bu fekkee complicité euh, spot bi pare na annonce bi on peut regarder si possible nga tagal ñu ko ak kër gi bu Kaolack parce que da ngeen di continuer ci mouvance su vingt ans yi. Mm, mm. Euh, ay Tambacounda ak yeneen dëkk yoo xamante ni peut-être euh, foogoon nañu duñu mës a gis kër gi de Kaolack sur scène ci seen ay dëkk euh, cette année dañuy am chance boobu noonu en fait tegal le fait que le samedi bii la ñuy diffuser le concert du Grand Théâtre direct TFM parce que y avait y avait y avait parce que man dama naroon ñëw sax bay si man yi jënd ay billets ay millions nga si kaw wër millions dama naroon jël këf ñëw këf micro bi waaye jox leen ma <laughs> sénégalais ngay wane fii ah. je pense que bon voilà loolu la et puis bon. c'est ça la tournée continue on est à Kaolack le 30 avril. Tamba le 7. Mamé. Ziguinchor le 14 mai le 14 mai après nañu génn parce que dañu doon jógee région yëpp ay ay ah, bu nekk a métti nag mooy waa Bakel ak waa Sédhiou euh, dañu ñëw ils n'avaient pas de parce que les tickets se vendaient à l'avance erreur la ñu def parce que on n'avait pas prévu que dina am sûrement mm-hmm. ay nit ñi ñëw mm-hmm. avant mm-hmm. ak ñi ñoo xam ne jour bi la ñëw parce que mais et jour bi dafa amoon ay revendeurs yoo xamante ni dégg naa au lieu ñu jaay ay vingt cinq non non non il faut dire les choses c'est le grand théâtre seen quota la ñuy jaayaat ci buntu yi. non est il faut dire les choses. parce que non on a fait des tickets non on a fait des tickets spéciaux. non non yow waa grand théâtre. c'est ces tickets là qui se revendent à la porte non mais ça c'est la vérité ça c'est non il faut le dire. il faut le dire dëgg bi loolu la je ne pense pas que grand théâtre non du ñoom ñooy ay personnel bi ay nit ñoo ko doon revendre ñun ah. on a fait exprès dañu defar carte yu leer mm-hmm, mm-hmm. pour les tickets d'entrée mm-hmm. def ay carte yu leer pour waa grand théâtre et c'est ces cartes là qui étaient en vente à la porte et c'est pas normal parce que ces cartes là n'étaient pas destinées à la vente c'est le quota du grand théâtre on leur a donné donc comment se fait-il que le quota du grand théâtre se retrouve à être vendu dans à la certainement ay non loolu foog ñu mais ñoom ñoom

et moi je lui ai dit demee eh, doo am place. mais mais am na ñoo xamante ne mais il était obligé de prendre mille jëndaat ko ci revendeur jënd mais am na ñoo xam ne comme li Thiat di wax même bu ñu leen waxee carte yi duñ ko jaay jaral na leen ko jënd parce que dañuy bëgg dugg parce que il faut savoir que tam am na ñoo xam ne ñoom ñoo leen di poussé pour ñuy jaay parce que daf leen di jaral coûte que ñu dugg ci biir parce que c'est une salle mm-hmm. boo xamante ni dafa am nombre de places limitées 1800 personnes lay jël mënu ko dépasser donc bu jeexee jeex na parce que lu tax ñuy def la diffusion par exemple samedi à la TFM fii nii à 21h pour que les 14 millions autres sénégalais yi nekkul woon foofu yi amul woon chance nekk foofu mën ko seetaan donc dañuy am dañ koy am en intégralité dinañ am ci première partie bi am les deux heures de show de kër gi. super donc loolu moo waral yooyu aussi nit ñi xam ni que nii du ñëpp ñoo xaj ci saal wala du ñëpp ñoo xaj ci saal ñu commencé am aussi culture boobu di éviter yenn yi parce que dañ koy jiiñ yenn kii te fekk na sax mën na bañ a nekk ñoom waaw mën na bañ a nekk ñoom quoi mais encore une fois ñu gën a def sérieux mhm. ci li ñuy liggéey ak ci li ñuy liggéeyee quoi mhm, mhm, donc euh, je pense que euh, loolu moo ñu fi indi woon Euh, wax sénégalais yi jàngeen jëf fépp fu ngeen mën a nekk ñi nga xamante ni yónnee nañ seen contribution comme euh, sama benn brode Issa. Mhm, mhm. mu ngi bakkan moom il a envoyé sa contribution. ñi nga xam ni mënuñ woon a ñëw. jël ay xaalis. yoo nekk ay sénégalais yi nga xamante ni. Mm. amuñu les moyen mm. dacheté un ticket ñu jëndal leen dix tickets. par exemple wala vingt tickets affaire yooyu am na ñu def loolu. Mm-hmm, mm-hmm. donc di jaajëfal di one love gars yooyu yëpp. Mm-hmm. di remercier surtout njabootu kër gi. mooy ñi nga xamante ni ñu ngi ci suñ ginnaaw ay xale yu ndaw lañ. depuis très longtemps ay booy. yoo xam ni dix huit ans vingt ba vingt cinq ans presque ñoom ñoo wër di taf affiche yi nekk ci réseaux sociaux yi di def un travail franchement boo xamante ni bu bu bu bu mënuñu ko mënaluñ ko suñu bopp. booy judd il y a vingt ans màggee ak kër gi aussi. di remercier aussi la chorale la chorale Kanjeli mhm. ils nous ont facilité aussi la tâche. Mhm, mhm. notre bande Walian bande. Mhm. di remercier aussi la symphonie. xam nga ñoom père William ñoom Ibou Kara ñëwoon ci biir ak père bari di remercier aussi. Euh, ñu yoroon vent yi bugguñ ñu tudd seen tur parce que dafa am fu ñu bokk eh. mais ñoom Père Sañu ak lamintal Tall eh. ñeneen ñi mooy loolu quoi eh, di remercier toute l'équipe surtout njaga aussi bi nga xamante ni depuis la sortie de cet album il est en partenariat avec nous et nous facilite vraiment le travail ci côté communication ci côté logistique. c'est normal c'est normal euh, gars yi nee nañu keroog pour une première fois Grand Théâtre a été très bien sonorisé. donc chapeau à Ndiaga. et aussi son équipe bi ci bi mu ci liggéeyal. Sarel Sarel le mhm. technicien. Mhm. di wax aussi franchement one love shout out. yow Pape yow mi ñu. jox euh, plateau bi ñu mën a remercier. Sénégalais c'est normal c'est normal di remercier Buzz Events. et notre label Penku Side. Mhm. di leen jox rendez ci yeneen événement euh, l'album de Mahalahi. 30 euh, avril 30 avril. Kaolack le 30 avril c'est à Kaolack. c'est un plein air. c'est un concert big concert qu'on va offrir au Kaolack. le 30 avril le 30 permettre à nos frères underground qui sont là-bas. ñu exprimer c'est surtout quoi te dañuy liggéey bëgg ko wane. Mm-hmm. di jox gars yi aussi rendez-vous boo xamante ni c'est des productions d'albums. Mm-hmm. bu ci mel ni bu Mahalahi. Mm-hmm. bu ci mel ni bu Général Jazz. ak une compilation prévue pour la région de Kaolack. ak euh, franchement ay projets yoo xamante ni peut-être. on aura largement le temps. gën ci mën en tout cas artiste loolu lay jëriñaa donc ñoom lii la ñu wax tey euh, prochain rendez-vous le 30 euh, euh, leen bëgg a présenter Moon laataa ñuy jeexal puisque ñu ngi bëgg jeexal yeewu leen bi avant de retrouver Eva Tra Mami ak Ndoy Ban Moon Jolof c'est un rappeur gambien Gambie soriwul ak Kaolack. xaw ma ndax xam ngeen ko ou pas mais merci d'être là kontaan nañu moom ah, yow en plus de hip hop bi ngay def dangay def ay tam. jàkkaarloo ba par exemple bii nii xaar ma jàppale la mu génn mais wax ñu ci liggéey bi ngay def parce que dañuy jeexalee ak sa ak sa clip léegi nii. ok maa ngi nuyu gars yëpp di seetaan. fu waay mun di nekk di seetaan man laa nuyu di nuyu waa TFM. Sénégal waaw xamee naa waa TV bi rek nga leen di gis de baax a baax surtout booy bi nii ah xamee naa leen bu baax ndik su ma premier ñëw Sénégal maa ngi nekka lu ndaw su gars daan génn a télé gars yi oo ma ñu ne bàyyi sa mbokk yi ñu ngi génn de kaay naa def peñe ci montor yu bëri nii <laughs> waa kër gi moom suma famille leen ñoom sant yàlla tamit tey jamono dem na ba ma màgg bokk ak ñoom benn benn plateau bi tey bi TFM maa ngi sant yàlla tam di rafetlu lii bu baax a baax Maas Ndiaye tamit di ko sant moom itam mm-hmm. ndegem moo def connexion bi yëpp ba ma ñëw teew fii ak Ousseynou Thiom suma gaale Yoof mm-hmm. jabaram Irène mm-hmm. ak Yahouja ak waa kër bi yëpp si Yoof foofu mais yow da rab di dessiner dama rab di dessiner kii xanaa Yaya Jammeh la <laughs> waaw neen nag rakkaam la <laughs> kooku rakkaam la. kii du yaaya. kii man la man nga dessiné fii. waaw Pape Cheikh Diame waay naa gumba de. man tey gisatuma laa ilaaha illallah ok bii nii kan la. ah boobu Bouba la. Bouba nice na bi. ah kii Youssou Ndour la. waaw xam ne nga kii. mooy borom Dakar de. grand yu la wax grand yu wi grand yu wi waaw mais grand bi wii la wax de. opinion mais la moo tax grand bi yow la moo tax grand bi wax wii. yow nga ne non après nga ñëw télé. loolu mooy démocratie waaw dëgg la de. loolu mooy démocratie dëgg la mais yow seen conférence de presse mujj bi. neexoon na de trop. yee trop trop trop c'est des grands bi la wax de. ah mais grawul oui on respecte son oui comme il respecte notre non xam nga. man moom fu tooyee ba tax. man waa nii waa non bu ngeen ma joxoon xaalis ma ñëw ak yéen. malheureusement waa non dañ doon wéccoo sax yére non pour yéeg ci kaw seen parce que su ma waxee ba pare may <laughs> moom ah ñi ko <laughs> muñ duy quoi waa noo joxuñu ma waa luy joxuñu ma corruption mu ngi bëgg a jeex nag ci dëkk bi quand même ah ak seen ay combat quand waaw gars ñu ngi ñu ngi commencé di ragal bu baax pas di ah. ragal sax mais di am prise de conscience oui oui ngi ñu ngi commencé di moytu dafa ñaaw mais dina dëñ dina dëñ ah xam nga réew moom da suux rek tey nga changé lii suba nga changé lii ginnaaw suba nga changé lépp mënul xëy sotti réew moom comme ni ngay toggee añ la rek doo ñëw rek sotti ceeb bi sotti yëpp loolu c'est impossible ngay def diwlin def nangam def nangam ku ci nekk ak étape donc ñu ci étape bu baax mais parce que aussi toggukat la c'est cool Tchad mi par exemple bu ñu. nekkee référendum day waxu togg. non c'est-à-dire dafa wax tout à l'heure togg quoi. ah oui li mu wax nii waaw wax na dëgg wax na dëgg. bu ñuy par exemple bu ñuy enregistré suñu album comme aux États-Unis <laughs> six mois Tchad moo doon ay pay laa. mais moom ataaya bi sax mënu. damay digal ak Tchad. <laughs> alors euh, mais kontaan nañ ci yow de. Euh, kaleel leen ma clip bi comme ça ñu teg ko pour jeexal ko yaa ngi Sénégal pour euh, pour how many time. ok man nag Sénégal naru ma fee yàgg noonu ndig dama ne woon naa indilee fii. ok gisee ak Youssou ah, yàgg naa see nekk mais tam bëgg naa jàppale bëgg naa mu génn international di Gambie rek laa mos a am ak job bi. Mhm. te bu nekk dama bëgg a ñëw ndegem TFM moom kër artiste bu mag la. dëgg la comme ko jàppee mooy Afrique moom. Mhm. a jàppale a dox ma gën bagage man daal léegi loolu laa bëggoon jàppale bi ba pare maa ngi ñëwaale suma premier clip muy street life. ok rap moom ñetti at laa si defagum. ok lii moom bisu ma defalu ndaw kon kon nañ teg clip bi tuuti. Euh, ci kanamu grand yi comme ça. Euh, ñu gis ko voilà <laughs> ñu gis ko euh, mën a xam. voilà nañ ci xool tuuti rek daf ñu bëgg invité. concert mais dañu aaye gàll. ah yéen dañ leen tere gàll bi lépp ak booy bii. naa leen dañ leen tere sax Burkina naa leen ñaanal su leen a bañ a moytu rek. mukk ñaanal kenn ñaanal defal rek caat ma ñaanal leen. la de kilifa bi pare la fu ñëw bu xam balaa ñu koy jëlee foofu yaay baax la waaw su ma kër a ngi te yaay dafa baax yàlla baax da waaye yaay jaam dafa baax. ne ko suma suma gars dama bëgg xam nga dañu dama bëgg ñu ñëw def fi show. non non comme Gambie soriwul ak Kaolack le 30 avril. Euh, ñëwal parce que euh, booy yi nekk underground dañ leen di defaral plateau foofu ñoom ñëpp dinañu exprimer wu et on te promet boo ñëwee ak sa sow di nga di nga di allah di nga di nga jouer le 30 avril. te direct TFM le public lay nekk te di ko mën a seetaan kaw Kaolack incha allah. allez euh, donc ñu jeexal ak vidéo bi mu ngi noonu euh, Mun Jolof la euh, tudd kontaan nañu ñaata ñaata lan nga prévoir da ngay génnee album fii mu nekk dama bëgg a maanaam benn tooga bu ñoo mosale balaa mixtape bi dafa nekk six sound. six six sons benn togg ma job la pare joxagum boobu public bi ma ok yaakamteeguma ci dara jaajëf bagage yi daal laa gën a a jaayagum no problème ñun en tout cas kontaan nañu kontaan nañu c'est très beau ñii seetaan bu fi jógee dinañ def commande man booy ñëw la 30 incha man def naa commande mais kii foofu mu jaay la bii rek eh, sama yoruma dara certificat <laughs> de hip hop ay entrée un million pour la première fois Youssou Ndour sax mosu ko ama ah. mosu ko def dëgg la yéen yéen ay borom Dakar ah. adduna bi kay kenn defu ko. <laughs> non dinaa ñëw. incha allah bi ñooy borom Dakar ah. Dakar dafa ndaw Sénégal Sénégal Dakar dafa ndaw. oui parce que Youssou maximum ay vingt cinq mille def quoi yéen ngeen def entre un million. adduna bi amul benn artiste bu mës a def un million ci currency. non amul Michael Jackson de la jamais fait en tout cas on est très content euh, ne changer naka la ko booy di waxee never never never change. never change never change ah. restez restez comme vous êtes. yow li nga mel loolu la def sa charme noonu la la Sénégalais yi bëggee. Euh, kilifa aussi heureusement ba moom mu ngi tempéré quoi saa yu baaxee rek. nga sotti ko ndax quoi <laughs> merci kilifa merci Thiat Alfi on revient demain. bu soobee yàlla. incha allah Pape Cheikh may remercier tout le temps ma petite sœur pour la coiffure Mami Sobel. Mm. Euh, jox es pour euh, habillement bi mi ngi nekk fii rek Mamel numéro am di mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. ci accessoire bi ak ci habillement bi. super merci beaucoup le avril Kaolack télévision Futur Média dina àndandoo ak kër gi comme ni ñu ko defee woon keroog le euh, sinon samedi di ngeen seetaan spectacle bi ñu amaloon Grand Théâtre c'était magnifique pour ñi ko fekkewul ñi demoon ba ci bi jotuñoo aussi occasion la pour ngeen seetaan spectacle euh, kër gi euh, Kaolack on dinañ leen suivre euh, durant seen tournée yëpp merci mun Jolof thank you gërëm nañu la ci ni nga jaaree fii le 30 invité nañ la Kaolack sinon kontaan nañu itam ci tableau yi defe naa di nga ñëwaat comme ça ñu gën a waxtaan itam ci liggéeyu artiste bi nga xam ne ni yaa ngi ci merci à toute l'équipe de production dirigée par Mao Cissé ak Pape Samba ñu ngi leen di jox rendez-vous suba vendredi bu 7 heures leen je rappelle que c'est et qui vous éveille. Bonne journée à tous.